ぐらい。

mbaa dagul woon. non non léegi defal Youssouf kii. léeg-léeg moom ci le plan coutumier lépp loo xam ne moo ca war ñun wax nañu si naan la géographie de Dakar wax nañu suñu njabootu toolu léegi yëpp si kër yi ak wax ci turu imam ci la imam Pape Samb ñun dañoo day ñaan yàlla maanaam dimb ci li bàyyi ko fa mu jëm yàlla bu ko la rek di jox di jëriñ sama lañ bëgg bu ñu nee wax nag ci turu jumaa bi beneen cër gi dañ koy def ma mbokk ba ñu soxla wu dara wax ci turu jumaa ji ñu ñaanal ko yàlla ndax nag dëgg-dëgg maa bokk fii te ñëpp ñu fi ngir ngir ngir wóor na la ñu doxoon suñu diggante ba di yàlla kon ñu sa diggante mu sañee. alhamdulilah rabbil alamin wa salaatu wa salaamu ala nabi karim sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ñu doon ñu ngi leen a bokk jullit ñëpp di yëkkati suñu kàddu ci tur Mouhamadou Moustapha Niass moo ñu xamal ne natt bi ci moom la def ndax moom mooy kilifa kër waa njaboot yëpp xamoon nañu ko ci mbéy mi ñu yàq ñëw nañu yàq ci léegi xamoon nañu xamoon nañu leen tey waaye ñaan nañu yàlla mu wut leen ci yéen yàlla tey li ñu gën a mooy tey fas yéene dem taal taal nga xam ne ci ginnaaw moo tax yoon bi sori kenn ku nekk ci ñu teew loolu mooy mbir mu ci yàlla lu xam ne fii ba suba boo toogoon di ko wax kenn ku nekk si ñu teew kër diine kenn ku nekk ci dóor na ko loxoom a fii bëri ko ñu mel ne doom ci séeréer yi moom ci ñaar sell bi njaboot yi ak ñaar mu doon la ñuy gàttal ci moom dinañu day kër lu waay am fi ñoo ko yéen di nuyu ñu ñoo déggee jógee dëcce di nuyu ñu ñoo déggee موجودة مخرج وغير مخرج ولا يقبل الإمام يخرج جميع عائلة التوجه وعائلة الجرم التي يقبل النوجي الجمعة تبديل متفاهمين يجير الإمام الخطبة ولا يدور الشعب إمام الله imam Sané waaye képp ci loxo imam Papa léegi ñëpp dañ ko waajal ngir ñoom ñëpp ñu cër pour lépp te xam ne mooy xalifa moo si amee ñaar ñu xam ne lépp amee ñaar ñoom la mu nekk nag li bàyyi ñaar wax ñu ànd ànd la ñoom amuñu seen yoon. bu sant yàlla rek. ci bàyyi bi nga xam ne. moom subhanahu wa taala muy bàyyi boo xam ne. muy si la di ci loxoom imam Saali ñu teg ko ci loxo imam def na woon lépp ci loxo imam Saali imam Saali teg ko ci loxo Ceerno Mataani néegu Ceerno Mataani ak Sey No. enojo. الطبيب حاج محمد باين موحتي الله يكمل سيدين موم دوبر إمام الله يعني ينمي منين وكم سيدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باقو جëm ci tey ci mel nii ndax damay suñu ne ma lu tax mën a te di jullee néew moom wax dëgg yàlla du dara ku sañoon doo ko gis waaye su ma wax tey mooy Ahmed Yan Thiam mille neuf cent cinquante te sama bàyyi jël Fuuta indiaale ko xaw mu nekk ak taalibe ci moom di ko liggéeyee di di di nekk ci fukki néew sama bàyyi di ko liggéeyee sama bàyyi def ko mooy jiili mbay mu def ko loxo lool di maye kër di maye oto